mbokk internautes yi dalee nag euh, jàmm DGE direction générale des élections daal di nag jël ndogal euh, ci ne nag day déclarer irrecevable liste coalition Yewwi Askan Wi list titulaire ya ak liste suppléant euh, bu nag coalition Benno Bokk Yaakaar di coalition présidentielle ba lépp nag ci ay irrégularités yoo xam ne dañu ko noté nag ci liste ya waral nag fu mu toll nii xel yëpp di dem ci ne boo moytu liste ba nga xamante ne na Sonko ak nag leader yi fare ci coalition Yewwi Askan Wi duñu bokk ci yile élection maanaam amuñu benn chance ngir teew ci assemblée nationale ndax moom mi di Ousmane Sonko moo jiite liste euh, euh, bi nga xamante ne mooy liste titulaire ya euh, bu nag coalition Yewwi Askan Wi fa toll nii nag ñu ngi xool ba xam lii dina antom déet xel yëpp nag nee nañu mënut a nekk ñoom moom bu yeboo nañu daal di maasal li nga xamante ni moom mooy seen bokk ci yooyu lee jongante waaye nag am na lu mën a sauver liste nationale bu Yewwi Askan Wi liste nationale bi pour législative yu 31 juillet prochain ñu déclaré ko irrecevable Ousmane Sonko tête de liste ak ak ñamu ànd di ay allié wam commettre erreur investir ci nag groupe titulaire yi benn daam bi nga xamante ni ma nga woon ci nag list suppléant ya tel erreur boo xamante ni nag erreur matérielle la bi coalition bu opposition bi définitivement est-ce que dafa nekk out pour législative suivi pas forcément bu ñu sukkandikoo ci benn expert électoral bu ñu interrogé par le témoin ci édition mu mardi bi daal di xamle ni naka ñaari solution ñooy présenté pour yeewee askan bi euh, bu ñu sukkandikoo ci spécialiste bu Ousmane Sonko ak ñamu àndal mën nañu saisir conseil constitutionnel euh, ngir obtenir possibilité modifier seen liste bi nga xamante ni nag moo am ay failles euh, bu fekkente ne nag itam loolee mënuñu ko def. bu ñu sukkandikoo ba tey ci expert électoral bi nee na nag euh, euh, yeneen suppléant yi euh, mën nañu nekk ay liste mën nañu nekk ay titulaire mën a remplacer ñoom Ousmane Sonko une chose est sûre Yewwi Askan Wi dafay saisir sept sages yi mardi bi les Échos daal di informer ci tey bi ne nag avocat ak leader yu coalition Yewwi Askan Wi daal dinañu nag démb daanaka guddi gi yëpp ña fa nekkoon di nag xalaat ci formulation recours bi naka lañ koy formulée lequel renseigne le journal dinañ ko déposé euh, par le mandataire national de Yewwi Askan Wi di Déthié Fall maanaam ñoom Ousmane Sonko naam même bu ñu demee nag ba conseil constitutionnel lankale seen recours ga ñu nar a déposé ngir daal di rectifier erreur ba lenn moo mën a sauver euh, liste coalition Yewwi Askan Wi mooy daal di nag euh, jël li nga xamante ni mooy nag suppléant ya ñooy doon nag ay titulaire ndax titulaire ya moom dañ leen ko daal di nag lankal ba noppi te